jërë ngeen jëf tey ñëwaan nañ ak si beneen champion euh, ma ko jël loft yëmbal ba tey ñu ngi yëmbal na jumaa pël fur xam nga ñun yëmbal daf dañ ko dañ ko dafa dafa nekk suñu biir xol quoi bu ñu duggee yëmbal duñ gaaw a génn xam naa peut-être que temps yi moom diggante caaro yëmbal Pikine lañ xewal ko on est dans la carrément au cœur de la banlieue fekk fii un grand champion euh, ma xujja ma xujja naka bagage yi waa naa sant yàlla bu baax a baax ah. waaw est-ce mën nga présenter wu pour ñi nga xam ne ñu ngi lay ñu ngi lay seetaan waaw salaamaaleykum di nuyu ñëpp di ziar ñëpp tam di sant ñëpp soo leen gisee ma xujjal wax nànk nag dafa lekk rek nga fekk mu añ ba pare ba biir bi fees moo muy wax nànk ñu comprendre ko salaamaaleykum mbokk di nuyu ñëpp di ziar ñëpp bala wax tamit pipa laa njëkk sant di leen waaw pipa rek bàyyi ma kenn ok ah, pipa explique ma loolu diggante pipa lan mooy lan pipa plupart tey jii dama naan entreprise la. d'accord parce que tey jii bëri na ñi nga xam ne yaa ngi leen dégg fii. Hmm. ginnaaw yàlla pipa la. d'accord tey jii ni kaaf yi ngay gis ni hmm. ginnaaw yàlla pipa la. d'accord waaw. d'accord parce que pipa maa ngi si bëgg a yàgg tamit ne. 2014 hmm. ba 2022 loolu du weer rek. kon pipa du du benn nit quoi. mais kuréel la. pipa ah. ñaari nit la woon mais instant bi da koo weesu mun naa ne àdduna la. tey fi ñu fekk nii fan la fan la si yëmbal. fii yëmbal la jumaa Pël Fuuta. jumaa waaw. ma fujjee yaa ngi si yaa ngi si élevage de pigeon depuis depuis kañ. 2014 ba léegi maa ngi si. 2014 ba léegi maa ngi si. kon kay si <laughs> mais xam nga maa ngi si woon mais lépp maa ngi kër Piba nekk si pigeon yi. ba yàlla def tey jii nii am na loo mu jugee fa. Hmm. ñëw fi meññ. waaw boobu ba léegi maa ngi si tey jii buñ ma déggee rek. Hmm. li nga xamante ne Pipa Pipa la lu tax ñu dégg ma Pipa la jógee. waaw moo tax ñu dégg ma na tey jii nii. d'accord 2014 ba léegi si yow la wax si prison kenn du ko dindi de. ah waaw amaana tey jii mën naa ne xam naa si prison dara wala xaw ma si dara mais tamit nag mosuma jël prison indi ko sama kër nit ñëw xeebal ma ko de. Mhm. wax dëgg fa yàlla te tamit dem naa tamit kër nit tamit. ci mhm. ñoo xamante ne samay xarit leen doyloo ma. Mhm. seen kër su ma nee lii la rek kon damay jàpp ne loolu mooy am. waaw bu dara tamit. lu gën a yokk motivation ci man. Mhm. muy sëriñ bu Pipa. parce que man ak moom dañ doon toog di wax. Mhm. moom danaa ma kii day def dara te ba fekk mu nekk xale bu ndaw demagul fenn. Mhm. mu ma kii day def dara. te loolu la yàlla def day am. waaw man tamit nag yàlla dogal na ni jël naa tamit pitax teete leen. jël kuubul bi kuupale ko. juddule ko miinal ko ba dawal ko dawal naa ko ba Kidira te réerul te mu ngi fii sama kër fii. waaw tey jii nii pigeon yi ngay gis ni nii. ginnaaw yàlla moom la. waaw kooku nag moom mooy borom kër gi pitax boobu noonu. d'accord waaw mais tamit pipa la meññee tamit. d'accord waaw d'accord tey jii euh, pour ñi nga xam ne bëgg nañ dugg ci ci élevage de pison ban conseil cest à fan lañu war a njëkk a commencer ban acte lañu war a njëkk a peser avant ñu ciy dugg. waaw tey ki nga xamante ne bëgg nga nekk ci pigeon yi. dama leer na bëgg nga see dem bëgg ngaa nekk champion. Hmm. tubaab bi loolu la wax de. Hmm. un bon sujet. un bon sujet te lu leer la wax. boo bëggee dem tey jii dangay dem ci ku si mel ni Pipa mm-hmm. man boog soo xam ne doyloo nga ma mm-hmm. ndax dañ lay assuré te man tama jëm bopp man dama koy témoin mm-hmm. ba ñu ma ci ba tribunal bu fekkee ni jaar nga ko fu ñu ko war a jaarale par force da ngay classé parce que man tey jii am na benn moment boo xam ne arrêté woon naa taxaw parce que damaa xawoon xat tuuti ma posé woon mais teewul ba ma ñëwaatee damaa jëlaat sama place fi ma ne woon fa laa nekk tey tey jii sax laa gën a yëg sama bopp su foofu noonu. Mhm. voilà. Mhm. nee nga da ngaa xatoon donc sûrement pigeon yi pour nga yor ko il faut nga am jot bu bëree bëri temps la laaj de. waaw loolu moom mooy temps bi soo amul temps moom nga bëggoo yor moom waaw ah, mais amaana tamit tey jii suñu pigeon yu ñu yor nii boo amul temps tamit ñoom dina ñoom am na dañu ko mën a motiver seen bopp mais tey ji kun dimbali nga dem kun dimbalu doo dem mhm. ñoom tey jii ba nga dimbali leen ñu doog a mën a dem. mais moo tax ba ma amee temps ñëwaat. Mhm. ba tey maa ngi sama place. tey tey tey kaaf bi nan la war a mel man dam des fois nga gis ay ay yu ndaw des fois nga gis kaaf yu ngande des fois nga gis mu tàng des fois gis mu sedd lan mooy lan ban c'est-à-dire ban genre ban genre construction la war a am pour nga xamante ni euh, ci pigeon bi ci lay gën a baaxee ci moom. waaw tey jii nit yor na ngunu. Mhm. di classé. Mhm. man kaaf gi tey jii yow ba ngaa da ngaa ñëw fekk samu rëy. waaw. taw di lima ma ci am ni xaw a duggoon nii si kaaf gi li génn aw ma ko woon bu njëkk mhm. te teewul maa ngi doon classé mhm. kon par exemple nit benn couple war nga mën a nekk éleveur soxlawul nga am espace mag a mag bien sûr loolu mën a la benn couple donc mhm. mën nga yor muy produire da ngay am li ci bëgg mais tey ji da ngay gis nit koo xamante ne mën naa yor presque quatre couple mais bu génnee ci àll day xaar de waaw mais nit man ba ma comédie ba am sa couple donc affaire bi du quantité quoi qualité la. qualité la mooy li ma la wax rek lu tubaab bu un bon sujet soo ko amee rek moom da dem. waaw. loolu tey tey Sénégal gii est-ce que tey yow tey boo jiwoon nga am fi bëgg a jëndee dix champion ci Sénégal gii par exemple bu dee bu dee bu dee laadum yi mën nga ne dix champion mën na fi génne bu dee xaj yi mën nga ne toor mi ngi fi euh, shadow ñoom ñëpp ñu ngi fi mais tey ci pigeon yi fan nga fan nga fan nga mën a dugg ba mën fa génne dix champion yu wér quoi yoo xam moom kenn du ko dindi. waaw am na tey jii boo duggee Pipa mun nga faa génnee champion tey jii boo duggee kër Baylo mun nga faa génnee champion kër eh, Bas mun nga faa génnee champion tey mais tamit am na ñoo xamante ne tam tey jii ni man mag man boog am ñoo xam dañ may woo ngir sa pour ma mën a jënd seen prison mais ma duma fa jënd sama prison. lan moo tax man tey jii tey jii su may conseil nit. Hmm. foo xamante ne mun naa jàpp nit loxoom yóbbu ko fa. Hmm. kër Pipa laa lay yebal kër Baylo waaw. donc pigeon yi ñi nga xam ne ñi dañuy dañuy def compétition am na si pigeon yoo xamante ni bu ñu leen ko mayee sax waruñu ko jël benn ci man man tey jii mooy li ma am na yenn éleveurs yoo xamante ne wax dëgg fa yàlla dañu may woo sax seen kër te ñu nekk sama xarit mm-hmm. mais dañ may jox seen pigeon amaana ndax nit moom nit moom da nga koy ruus rek mais am ñoom dañu ma jox leen ko mu ñibbi ma ko mais tamit soo ma ko joxee mënu ma mënu ma laa ne du ma ko jël ndax ku la may mënoo koo gànt njëriñ li lan la par exemple dañu yóbbu c'est bien vrai que spectacle bu nice na boo xamante ni man man damay poser la question la moo tax journaliste yi nekk si diggante Sonko Macky Sall ak Adji Sarr ngir yàlla jàppale benn semaine rek ngeen pause tuuti ngeen bàyyi Sonko ak Macky Sall ak Ablaye Sarr kii <laughs> Adji Sarr ma ne Ablaye Sarr sax ngeen wax un peu yi quoi parce que loolu compétition bu nice la loolu spectacle bu rëy rëy rëy la et la moo tax léegi nit ñi duñ si intéressé wu trop trop normalement yow soo koñ heure bi fekk gars taxaw xam nga di tëgg di fecc di xaar pigeon bi egg si comme ni ñu ko defalee ay Balla Gaye <laughs> yooyu Modou waaw tey jii loolu am na ah. ndax ñun tey jii nii bu ñuy waree sànni suñuy pigeon ah. am na ay xale yi nga xam tey jii nii ñu ngi ciy bàyyi xel ci pigeon yi bëri na ñi nga xamante ne comme tey ji sànni yi ñuy sànni moo ba dugg toog di xaar prison ñoo xam lii a jaaxale mm-hmm. man ñu ma may nekk di wax ana prison yi ana prison yi ndax entraînement ngoon gi rek da leen di jaaxal prison yi di naaw fii si kon damay génn prince ñu naa ma sa prison la leen naaw ne te fekk ne loolu entraînement bi la mais du risque tamit nga jël nga jël benn wecce bu bëree bëri def ko si benn prison boo xam ne yow bu naawee mënoo kaa topp nga sànni bu dem <laughs> loolu du risque. ah mais loolu tamit loolu nekkul risque. Hmm. ndax nit jël na ay millions def ko si otom te tey jii mun naa génn oto bi këpp wala oto bi soge ah. mais tey jii damay faral dégg nit ñi naan alal buy naaw du alal. fii ah, lépp loo gis lu risque la yaa ngi da ngay jënd sa oto ay million gaare ko su mbedd bi. Hmm. yow nga dem tëdd sa biir kër dugg sa biir néeg. Hmm. boo xoolee pour doo son lépp dañ koy baay ci loxo yàlla ni ku nekk tam ñu bàyyi ko ak bëgg-bëggam tamit. mais incident mus si am quand même nga sànni nga ngeen dem sànni prison xaar non seulement jëloo premier jëloo deuxième gisoo prison. waaw loolu am na. lan moo koy waral bu amee. lu koy waral parce que des fois tamit da ngay gis yàggul tamit fan yii yàggul dara ci ginnaaw suñu prison def nañ choc. waaw boobu yëgoon naa ko. waaw déggoon man tamit nag amoon na année boo xamante ni dëgg fa yàlla doon naa sànni samay moroom dañuy jàpp. may toog di teen di teen fekk du ma gis dara mais ba ma demee ba toog loolu yëpp daa fekk may jàng te ba léegi nii sax damay jàng mais ba ma demee ba ba commencé di comprendre damaa daw dem kër te boo ba ba ma ñëwee ba léegi nag maa ngi sant yàlla xam nga ni nga sànni douze pigeons Tiwaawoon. douze pigeons nga sànni ko douze pigeons wàccandoo. ñu ñëw ñu ñëw ba yëmbal. Tiwaawoon laa leen lesee ñu ñëw ba fii damaa planqué taxaw. douze pigeons. d'accord pigeon ordinaire yi ngeen di yar. pigeon ordinaire yi waaw dañ leen yar am ñoom dañuy def race. am na mais ñun tey jii nii leen yàlla xiir. pigeon waaw pigeon yi compétir ñuy compétir daw. Mhm. waaw. te que financièrement yéen a gis seen bopp. waaw ñu ci gis suñ bopp de ndax dëgg fa yàlla bu dul dara rek mbégte mu ci njëkk am rek man fu mu ne nii su ma xëyee yàqantuma lu dul wàcc ñëw jaaxaloo ñoom. déjà tam yaangi ni déjà ba ngay dugg da nga ñëw fekk tok ma toog jaaxaloo ñom man mun naa ne mun naa wàcc cinq heures mhm. yalla xana bala ma dugg sama neeg gee day jot ndax mun naa wàcc ma ñëw fi lay tok nekk ci ñoom d'accord waaw et que lan mo ci sa sa sa rêve sa ba fan nga ci nga ci nga ci nga ci bëgg ag. waaw ndax ba ma amee leen jot dama posone. mais instant bi ni ni nii mu moom kenn xamul mhm. waaye lu ci luma ma yaakaar de mooy tax ma moo ma tàqaleeg ñoom. d'accord lu ne bëgg nga ko ci am kon. lu ne. est-ce que jàpp nga nit mën na ci am teraanga ju wér a wér a wér est-ce que am na ku fi mën a am maam taxaw taxaw taxaw nga ne lii ci Pison laa ko jëlee. waaw am na. tey ji am na ñoo xam ñu ngi ci ñu ngi ci investir loo xamante ni. Hmm. ci Pison lañ ko jëlee. tey jii nii damay jox benn exemple ku si mel ne Pipa. Hmm. jox nañ ko xarulaadu bi ci Pison. xarulaadu contre Pison. waaw. jox nañ ko xaru laadum jox ko ci ndax ci ndax ci ay prison ak leneen ak leneen tamit te léegi tamit da ngay jaay say prison ay yenn prix tey jii am ñoom dañ lay woo feneen ay Touba ak feneen ak feneen ñu lay woo ngir bëgg nga jaay leen hmm. waaw. d'accord d'accord est-ce que dëkk yooyu comme li nga wax léegi ah ay Touba par exemple comme bi nga tudd euh, Tamba dëkk yu tàng yooyu noonu est-ce que élevage de pigeons mën na fa dox trop trop trop trop wala pigeons ñoom ñeme nañ tàngaay. waaw tey jii am na yenn pigeons yoo xamante ne moom lu mu métti métti dañ koy gérer. mooy li ma wax rek ndax pigeon yi nii man bokk suñu ma xam bokk suñu pigeon yi nii ñu mën a nekk soo leen dimbalee dañuy am jàmm ndax nit nit yow mi nga xam nit nga tey ji da nga koy boo màggal ji wala nga gàmmu ji rek da nga naan dafa tàng dafa tàng hmm. waaw kon nag kon noonu la rek ñoom bu leen dimbalee rek ñu kii ko mais am na yeneen pigeon yoo xam ne résistance boobu amuñu ko waaw d'accord bi leen ëmb yéen yéen ñiy yëngu si wàllum pigeon euh, bon lan nga jàpp ne war na ko mën a yokk pour que acteurs yi gën a gën si gis seen bopp quoi waaw fédération bi moom peut des fois boo xoolee jafe-jafe yi bëri na benn mooy njëkk a wax mooy peñeere dañ problème boobu dañ koy xaw am par des fois. pañe bu bu beneen bu topp oto dañuy am problème boobu par des fois tamit moom bu ko amee mu leer na bi fédération moo moom fédération moo ci dogal. Hmm. waaw kon jàpp naa ne sang bi lépp sayee la day am jàmm doy doon. mu mel nag oto bi moom mooy jàmbatu ñëpp foo mën dem moo fay moo fay moo fay wax te wax dëgg fi oto moom. cher na cherul quoi comprendre nga même bu dee benn oto cinq millions dix millions loolu gars yi ñii am nañ ko ñii ne ñoo bëri xaalis bi ñu gisee nii nii nii nii <laughs> kese la <laughs> mais yéen seen biir la moo tax mu leen a booloo cotiser kenn ku nekk def dara dara dara dara ba keroog muy mat waaw mais tey jii nii bañ 2014 ba léegi daanaka ñu ngi natt di teg mais maanaam tey jii foo dem fu ne amaana njublang ma nga fa hmm. da nga gis koo xam day toog nekk président bi gérer ba yàgg mais day saa naax saa yàgg na fay am loolu moo gën a taara ci colonne mais instant waroon nañoo dépassé foofu noonu. moo mhm. tax waroon nañ am bu yàgg yàgg. Mhm. waaw d'accord est-ce que fédération bi daj na Sénégal gépp wala wala par parti parti la ci biir réew waaw instant moom fédération dama naan moom Sénégal gi yëpp la fii. Mhm. waaw ndax foo dem fu ne zone boo dem bu ne. prison yaa nga fa. te am na ñoo xam ne ñu ngi bokk si as fédération bi. d'accord est-ce que ak éleveurs yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi bitim par exemple moo xam ci biir Afrique la wala Europe États-Unis est-ce que yéen yéen a ngi jéem a jokkoo ñoom pour jéem a échanger te a yokk xam-xam wala gën xalaat. waaw tey jii nii am xam ne ba ci marocain waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. feneen ak feneen ak ñoom. yéen dafa mel ni ngeen di li ngeen di jokkoo ak marocain yi ci waxtu bison moo ëpp te lu tax loolu. waaw ah, waaw xam nga kenn ku nekk tamit li moo la tax a jóg ak tamit li nga bëgg. waaw mm-hmm. ah, ñun tey jii nii ñi ñuy toog ñu ñëpp bison moo tax ñu xamante ñun ñu ñëpp Prison moo tax ñu xamante kon tey jii su ma gisee ñu naan Prison day yàq wala Prison day kii loolu daf may xaw a jaaxal. waaw ñun ñu toog ñu ñëpp Prison moo tax ñu xamante waaw am na am na benn moment ñun temps booy bi ñuy jël fii ay Prison caaro yi mais kër yu bëree bëri bëri boo fa dugalee Prison naan noo Prison baaxul day delloo kër gannaaw dañ dégg nga dégg nga wax yooyu noonu. waaw man ba si man mii loolu doon na ma arrivé ah. mais dama see teg sama bakkan ndax bañu ma dara prison moom dégg lu ma wax de dee mooy tax man mënut a àqali ma ak ma moom. waaw. d'accord d'accord bu xuj ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax est-ce que laaj naa question bi sànq rek euh, Axma est-ce que mës nga am benn benn benn nouvelle boo xam ne neexul la xëy na ci prison yi par exemple am nga xëy rek am na xar boo xam ne prison yi teg nañ la ko waaw. prison yi yàggul dara mooy jour bu ma lay wax ne rek jour may wàccee douze prison rek. jour boobu rek mbégte bu ma am mënu ma kaa comprendre. non boo xam ne naqari na la par comme ça naqar tamit. Ah. waaw am na. ginnaaw accident bi accident bi moom xam naa ne yàlla bu yëgoon dina <laughs> a ko annulé quoi <laughs> accident la naqari <laughs> léegi wax ma boobu wax ma beneen bokkut ak boobu. waaw am na bëri na. Euh. waaw tey jii parce que national rek. Euh. am na national yoo xam ne dañu ko doon sànni. Hmm. presque tax yu fay naax saay doo comprendre. parce que fekk investir investir nga si lu bëri bëri waaw waaw nga def nga def si lu bëri fekk 10 pigeons sax mënoo ko am te boobu li nga sànni si ay pigeons mënoo ko comme loolu naqar la toog ba ay fan yi fan di séntu ba léegi mënoo gis dara waaw d'accord d'accord juste la dernière question Balla Gaye buy bëreeg yow danaan la may naa la 3 minutes may naa la 2 minutes assurance boobu muy am noonu est-ce que yéen mën ngeen taxaw fii yëmbal ngeen ne buñ sànnee at mi yëpp premier premier pigeon bi njëkk atterrir yëmbal lay dëkk waaw ngeen teg ko fan tay jii nii ku ne ku nekk da ngay fabab mais man tay jii nii ah. bu njëkk dama doon sànni di toog di xaar naa dama xaar waa waa yàlla baax na ak affaire yooyu dégg lu ma wax de yàlla xam na ni laa la wax bu njëkk dama doon sànni hmm. di toog naan damay xaar ba waa kër ma saa jàpp may doog a jàpp mais léegi su ma sànnee temps bu ma ko calculé 30 minutes fu mu amee damay jug taxaw ndax man boobu gisatuma dara xoolatuma waat kuunun xoolatuma fenn sama pigeon rek laay gis kon mën nañu wax capital bi moom fii la quoi waaw yëmbal waaw poosaan bi nii moom. sa waa bi tuuti na de waruloo sa bopp xanaa. waaw <laughs> bi nii dégg la mu war a ñu amatuñ leen suñ xalaat. luñ ciy xalaat moom instant bi amatuñ ko wax dëgg fa mooy li ma la wax rek. ndax waxoon naa la man la dañ doon sànni di toog di xaar. Hmm. mais instant bi nii ñu toll nii jamono gi ñu toll nii. Hmm. affaire seere na de ku ci mel ni Axma nekk ci wet bi feneen. d'accord. d'accord ma xujjee bala mooy sa contact pour ñi nga xam ne bëgg nañ jënd pigeon ñi nga xam ne bëgg nañ am ay xalaat parce que am na ñoo xam ne peut-être que ñu ngi Tamba mais malheureusement amuñu si xam bëri ñi ñu bëgg a investir ci ci pigeon mais mais ñeewuñu yoon bi trop quoi lan mooy sa contact boo xam mën nañ la si jot pour mën leen a gën a leeral gën a gën a jokkoo ñoom aussi. 77. 966. 76 92. 966. 76 92. loolu mooy loolu mooy numéro ma xujja pour ñi nga xamante ne bëgg nañ jënd ay pigeon wala ñu bëgg a sànni. mais man sama gars yi nekk bayax xam nga léegi man waa bayax laa démb laa jógee dem bayax mais léegi waa bayax laa donc waa bayax góorgóorlu leen ngeen fexe ba défier waa yëmbal quoi <laughs> ma ko jot mu leen lancé défi ma ko jot ñu lay lay jaajëfal baax a baax a baax ban moo ngay sànni sa gars yi nga xam ne yaa ngi jobandoo ñoom depuis des années ci ci prison yi waaw loolu moom mbégte la ci doon sax ci man waaw mu mel ni mafia bi ni ñuy toog nii ñëpp comme wëcc mi axma booba Rose Serigne ñëpp ak ñeneen ñoo xam ne ñu fi. Hmm. ñëpp dama leen sant di leen gërëm. doo gërëm soxna si. non soxna si ñëwagul <laughs> bientôt rek ay far. <laughs> kon yëpp amuñu jabar <laughs> célibataire lañ mais lu tax loolu. non dara daa jotagul lañ amaana. mais kañ lay jot. lu jot rek yomb. xaw ma maman yaa ngi may dégg bu yow ñu forcé ko dañ leen ko forcé bu takk jabar en tout cas kontaan nañ trop sa temps bi ñu jox vraiment kontaan nañ lool lool lool lan ngay tàggatoo eh? waaw ah, waaw lu may tàggatoo moom moom instant bi nii yéen laaj yéen dama leen gën a santaat tamit di leen gërëm di rappelé tamit seen temps bi ngeen def waaw parce que lii ngeen def nii rek tamit mun naa ne day gën a doxal colonisé bi waaw kon yéen tamit yéen xam li nekk seen xol ak la ngeen bëgg tamit yëpp moom dama koy bàyyi rong li des moom ci loxo yàlla ñu teg lépp waaw kenn ku nekk moom yaa xam li nekk ci yow dañ ko bàyyi yàlla rek